jox seen waay ci waay candidat bu ne nag am na kenn ku ne yaa ngaan candidat des ay assises di tax lu ne yéen a ngi ciy dugg jug leen ci li ngeen nekk ñun songko, jiital nit Ousmane Sonko fi luñ ko tax président Ousmane Sonko man personnellement moom laay diglu man moom rek laay man comme ne di kooku la rek man kooku laa andal comme ne kooku rek kooku laa andal da jël naa sama pare naa ci lépp pour jàppale ko pare naa pour campagne pare naa pour mais kam ne kooku la rek kooku la ñun lan waxoon démb ak bërki démb mooy suñu waxu tey waaw ñun man bopp man Ndiaye Touba sama kàddu bopp laay wax man ak ñi mel na man ñun suñu décision mooy képp président Ousmane ko tànn kooku la ñuy soutenir ñun waaw mais def sa photo tax ko yónnee mu ko naan ma jàppale ma man jàppale wu ma la de man jàppale wu ma la de Ousmane Sonko laay jàppale waaw defar sa bu ma neexoon dem defar sama photo tax daan ne aca wax leen déedéet fii wax ba falo amu fi de déedéet wax ba falo amu fi de déedéet nañ ko rang yi na jub ñun président Ousmane Sonko la ñuy déglu kàddu gu man man delloo naa ko sama wàll képp ku ma tànnal man pare naa pour jàppale ko ku ma tànnal rek man pare naa pour jàppale ko man foofu laa nekk te foofu laay woo jeunesse bi yëpp candidat yi xur dab bi yii xam nga ne ñii di ne ñëpp dañoo xiiba xiiba mara mara mara mar dem ensemble régler seen i règlement de compte doo nga leen fa yóbbu kenn ku ci réew mi ñor nekku ci kenn nu la ci ñorul xam nga ne Khalifa Sall bu demee ba bokkaat ak waa APR PDS dem ba bokk ak waa APR neen coalition xam ngeen ne ñii bëgguñu réew mi bëggaanuñu réew mi la doon seen waxee démb ak seen waxe tey dara bokku ci ñii dañoo bëgg a seeñawaat yaxe waa réew mi ndax dañoo le woon ay tiwa ci deret nit ñi di naan Ousmane ko ñëw cuqati tiwaay deret ya sànni ca àll ba kenn ku ne dem ak sa deret bu ngeen xulee ba branché waata leen seen tiwaay deret yi daan ngàccaat seen deret ji ba mu jeex dégg ngeen li ma leen di wax bu baax a baax ñi nekkon ensemble depuis 2012 ba légui ban ndariñ ban changement lañ leen indil na lew député yi bes tak tak yu ndaj ci paquet yo xamni ben PDS ben APR du ci ne mu leena bayyi PDS ak APR ngir yalla mu leen dal mo leen ko tek PS PDS APR dimbal leen ngir yalla ben produit bi la ben la ño bokk menum bof yenn ginar yi la man nga jënd carton ginaar dugal ko naan ginaar ji bokk tak ñoo bokk benn machine bu leen produire benn machine bee leen produire sax bàyyi leen ma PS PDS APR way señ bi xurta bi candidat yi taxaw naan dañuy poser kanda dañuy def kañat ku leen fi jox xalisam ñun Ousmane Sonko la ñu jox suñu kañat te bàyyi nañ ko jox la bàyyi la ji kañat ñun eggale suñu projet lañ bëgg ngeen taxal fi naan xale yi tuut nag foj ca taxa fee boo waxee ñaar ñi di la diglu nga yaakaar ne yow la nit ñi diglu nit ñi diglu wuñ la de olof la ne boo amul parfum day ànd ak borom parfum yéen da ngeen a àndoon ak borom parfum muy Ousmane Sonko képp ku ci beru yaakaar na parfum bi yaa koy xeeñ nax nga sa bopp soo génnee nit ñi daal seeni bakkan parfum bi Ousmane Sonko gu diwoo de dugg ca dagaj di ko xeeñ ne ñëpp boo génnee doo xeeñ leneen patriote yi na leen focus foofu de ñun ñëpp nañ leen ne xëlëb xëlëb jéeg lëfër lëfër ji bari na mais na ne man rakk ji ma bokkal ndey ak bàyyi boo doon candidat laa damaa teel di ko seetaan kon damaa jëlale nii nii nii déedéet ay nit yi système lañ yéen da ngeen da ngeen tabax réew jël président Ousmane Sonko jiital mu jël Diomaye jiital tànn la boo président amoo ci dara loon naqari tànn lay boo ministre amoo ci dara loon naqari di tànnal ay candidat euh, député nga naan fii la xar yi jaar jeunesse du Sénégal na ngeen jël seen i matuwaay yéen sama yaay sama baay sama maam yi na ngeen jël seen i matuwaay na ngeen diglu ki Ousmane Sonko sam